والسلام على من نظم المجتمع المحتار حيث يقول الراجز السنعالي السيد الشيخ أحمد التجاني المكتوم ونظم المجتمع المحتار لا ظلم فيه لا ولا إنكار وقال للروح تقدمي ولا تلتفتي لفعل غير ما ثم على وقال للأخلاق فلتتبعي سبيلها من دون أن تبتدعي وقال للمادة تقديمهما ولا تحالف الحكيم فيهما وعلى آله وصحبه أجمعين بوك جلدي نيجي أنات أكيان تيسين إميشون خمسة ديني فيكي بريستيز تي في نيولني نيو دلين زيار نيان يالا يالا نيو يالا ماي كيف كو خمني يانجي تي بريباراشون أتش لينغا خمني موت نيك تي بير تي فراتا يالا ماي لنغا جوخي كو بمت سك ci biir émission boobu ñu dalal ci koo xam nag macha allah imam baylay gay kenn la ci diine ci muy imam ci grand standing macha allah di yëngu ci diine di kilifa dëgg yàlla ñu indi ko fi woon tey ne waxtaan ak moom ci mbirum ak bu ko defee imam ñu bàyyi la nga nuyu الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولدي بوك تيلي سبيكتاتور يو بريستيج تي في نيغي لين دي نوي دين زياره واي دي جار لي سونو نيو اك سونو زيارتي سونو سوبي سونو خريت نيب ما شاء الله دي بروفيسور عثمان باي ديكو واتي واتي وايام دي كونتان نك سي دالال بي مو نيو دالال استاذ امام نيغي لاي سانتا دي لي غرم سي تيواي بي xam nañ ne ñu ngi ci mawsimul xaj xel yëpp a ngi màkka yàlla def yéen ngeen bokk ci ñi nga xam ni yéenay tette nit ñi di leen xamal la ca war looloo waral nag ñu indi la fii tey bëggoon nga leeral ñu parce que Sénégal bëri na ñoo xam ñii dañ naan damay ziyaari ji ñii naan dañuy aji ñu bëggoon nga leeral ñu foofu tuuti rek waaw loolu lu am solo la ñu ngi ñaanal xujaaji baytillahi alxaram yi waaj yëpp yàlla yàlla yombal seen lépp macha allah ñi demagul yàlla na leen yàlla ndax dëkk la boo xamante ni jullit bu baax bu ne di nga yéene sa mbokk mu jullit mu dem fa defi fay li nga xamante ni mooy juróomeelu ponkam muy alxaj mooy wax ni ponki lislaam yi juróom la comme niñ ko xamee seede ne ay buur yonent bi la yónni julli woor génne azaka waaye dem màkk waaye ñeenti jiitu yëpp Seydina Ousmane man nga ko defee fu la neex waaye juróomeel bi mënoo ko defee fu dul màkk su la neexee nga seet buggee dugg ci l'islam mu fekk la Malaisie wala na la fekk Australie nga def prise de conscience dugg julli mën nga ko defee fu la neex di nga jullee fii ci prestige tisbaar tàkkusaan jot nga jullee ko ca Mali wala ci misaal nga jullee ko ca Ndakaaru eh, suba suba di jotaat nga jullee ko ca Mali wala ca Canada wala fu mu mën a de koorit nekki noonu waaye màkk mënee su koo defee fudul màkk muy ko lom solo yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne du waxantu dafa ni bàyyi leen ci xel ndax ku ko defee ni nga ko war a defee yàlla mënu la fayee lu dul àjjana alxajjul mabruur laysa lahu jazaun illa al janna yonent bi sallallahu alayhi léegi nag nga wax lu am solo dangay dégg kuy waajal Màkka ñëw ah man de damay la doon yë tàggu si nii la damay ziyaare ci yonent bi keneen ca tàggoo ni man de damay aji ren ñu ne ñaari wax yooyu mooy lan leen saa sax nga dégg ñu naan nit warul wax ni damay ziyaare ji yonent bi di tàggoo yem ci loolu parce que bu fekkonte ni bi muy jógee fii Makka lay jiitu kon warul wax ni damay ziyaare ji yonent bi waaye comme ñun am nañ possibilité bu ñuy jógee Sénégal taqdimu ziyaara la ñuy def Madina la ñuy njëkk a wàcc fa yonent bi tëdd kon man nga ni damay ziyaare ji bi te doo ci am sikk parce que boo demee ba def sa ziyaaraat ba pare si ngay soog a dugg ci aj moom nag bu doon doonaan beneen étape kii nii nag damay aji mom dafa def une pierre deux coups wax na ni day aji ba pare amale na ci bir aji gogu ziyaare yaronte bi alayhi salatu wasalaam ziyaare bobu yaronte bi alayhi salatu wasalaam mu nga ci madinatul munawwara nga wara dem ziyar ko la ngay defi foofa yep nak bokul ci amalul hajj daray aj nekul madina madina bo fa deme dëkk la bo xamanteni bis ba nga fa wàcce lañ la commencé ni la léegi nak ñu ngi lay pointeel ñaari rak yo fi def mir rak nga mir rak junni rak mooy ñaari rakk ci jàkka yonent bi imam bi nga gën a fonk ci Sénégal sa sëriñ bi nga gën a fonk ci senegaal su jullee ñaari boo jullee ñaari rakk ca jàkka yonent bi moom mu bëgg laa dab cër bu mu mën a am il faut mu julli junni rakk muy mir rakk pour man laa dab kon loolu lu am solo la yaa ngi koy defee ca madinatul munawwar soo fa duggee damay wax xujjaaju baytillahi alxaram yi ni leen saa yu ngeen ñëwee Medine xam leen fi ngeen ñëw fii ngeen ñëw mooy fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ne yi daan nekk di fi dox fu sang bi daan teg tànkam fa teg jëwam dafa toog boo fay dox war nga ànd ak teggin ak yar muy madinatul munawwar soo fa ñëwee li ñu lay njëkk a wax mooy del julli ci yonente bi alayhi salatu ba bis ba ngay dem ca jàkkaam ja nga waaj sangu sol sa yére yu baax yére yi nga gën a fonk da wax yàlla ko fi président Macky Sall luy di nga seet sa walis nga sol ko wala boo mënee xotti ji lu bees nga def ko waa ana yonente bi alayhi salatu wasalaam wala kon muy lu rëy soo demee ca jàkkaam ja bala ngaa dem di ko nuyu jullil ñaari rakk julli nga ñaari rakk faatiha qul yal kaafiruun faatiha qul huwallahu ahad ñu pointé la mille rakk nga puusaat julliwaat yi ne ñun la mille kon xam nga ni loolu dafa rëy boo defee loolu ba pare demal ca rawdu ba jaaral baabu salaam yi wala nga jaar baabu siddiq boo jaaree baabu salaam rawdu yonent bi da lay féete sa càmmoñ soo jaaree baabu siddiq ñoo taqaloo rawdu bi da lay féete sa ndeyjoor boo duggee jàkkaam ji yépp la ñu climatisé waaye boo jubee ca raw doom ba di nga yëg piix moo xam ne lii di nga xam ne du climatisation c'est pas naturel yonent bi naan maa bayna xabri raw minbari rawdatun min riyaadi janna hakada hakada kon mu ni sama diggante xabru bi ak sama kër gi sama kër gi ak sama minbar bi mu ni fii benn dër la ci dëru àjjana yi moo tax ku fa nekk mën nga ni bii àjjana laa fanaan ku fa fanaan ku fa yendu mën nga ni àjjana laa yend kon da ngay ñëw ba foofu rek gis piix mi lay upp nga xam ne lii beneen affaire la bu la piix mi du upp rek xamal ni yaa ngi jege sang-sang yi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nga ñëw nuyu ko asalaamu aleyka ya rasulallah boo koy jub rek di nga gis ñu bindal la ci kaw nag ni la nanga correct inna alladina yaxuduuna aswaatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtaxana allahu qulubahum li taqwa fii boo fi ñëwee sa wax warul bari say comportement dee ko vérifier bu baax a baax a baax te xam ne yaa ngi ñëw ci sang bi nga ñëw ziyaar ko ñaanal ko asalaamu aleyka ya rasulallah asalaamu aleyka ya habiballah ya shafia al damay wax pèlerin yi ni leen jarul ngay jàng arab bu compliqué ba wax ko wolof sax boo ko nuyoo ba pare maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaare yow sax sang-sang yow bi gën ci ñu yàlla yónni maa ngi lay seedeel ni li la yàlla def loo woon yëpp def nga ko lim la wax loo woon yëpp wax nga ko yàlla la yàlla fay boo ko ziyaare ba pare nee na ku may ziyaare ñu delloo ma sama ruuma fay la soo ko ne asalaamaaleykum ñaanal ko mun la wa aleykum salaam wa rahmatullah ya xaaj wala ya xaaja ziyaar la moom nga tegaat benn paa yaa ngi dem ci Abu Bakar ni moom nga ziar ko nuyu na la yow xaritu yonente bi yow première xalifa yonente bi yow mi nga xamanteni ya mas don deuxième am fu ngeen meuna a yal na la yàlla fay ni nga liggey l'islam nga tegat benen pa ñun la Omar ibn al-khattab mo fi nek momit nga nuyu ko kon rawdu du bi yonente bi fa tëdd bakkar Omar momit nga nuyu ko ziar ko ñaanal ko yow mi bayu hafsa ñaarelu khalifa yonente bi yal na la yàlla fay ñaanal ko continuer bo continuer yaa dem directement baqi al arqadi baqi a fukki junni sahaba ñu nga fa teud ummahatul muminina soxna te bi fa la ñu tëdd borom ngir mi di imaamu malikin imaamu daaril hijra fa la tëdd doomam jooju nga deg ñoon ko ibrahim di yenen te bi fofu la tëdd ñoon abdurrahman ibn af ak seen kem ñom ñep ñu nga fofu ba ñuy fukki junni sahaba nga ziar leen bo leen ziaré fofu ñomit moy baqiya góor ñi dinañu dugg mais jigen ñi duñu dugg duñu dugg ca biir ñoom ci biti la ñuy tax nga dugg nuyu leen asalaamualeykum ahla diyaari min al muminina wal muminaat wa idna incha allah bikum laaxiqun ziar leen ñaanal leen soo paree ci étape boobu da ngay delluwaat sa hôtel ba ñu jàppal la benn bis bu ñuy wax kullu ziar kullu ziar ñetti étape la soo génnee sa hôtel dugg si kaar bi uxut nga jëm uxut mooy fa xare bu njëkk am ñaareelu xare ci lislaam te ñoo gañee jullit yi foofu la amee woon di nga ñëw joxoon la montagne bi ni fii la yonente bi waxoon jullit yi yéeg leen bu leen wàcc ñu gañe ak buñ ñu gañe ci njiitalu Abdullahi ibnu Jubayrin waaye ñu victoire am rek ñu wàcc ba ñu wàccee Xaalid ibnul Walid boobu duggagul ci lislaam ànd ak cent soldats ci kat li yéefar yi yéeg ca kaw éliminer diis yooyu renversement de situation am défaite am danaan la fii la nga ñëw ziar leen foofa seen armée li soixante-dix mu nga fa Hamzatu bnu Abdul Muttalib mu nga fa Hanzalatu bnu Abi Amir mu nga fa Abdullahi ibnu Jahshin mu nga fa Musab ibnu Umayr mu nga fa ak yeneeni saxaaba ñu ngi tëdd nga ziar leen foofu góor du dugg jigéen di dugg xam nga baqee am ah, nee naa la góor dina dugg mais jigéen di dugg mais fii nag góor du dugg jigéen di dugg ñépp a ci yem ñu ziar leen ñaanal leen macha allah nga jóge fa dem fu ñuy wax xibla tey nii xibla tey ni mooy jàkka ji nga xamante ni jullit yi ba ñuy julli bu njëkk la daan féete Jérusalem am jullit yu nekk foofa di julli benn saxaaba ñëw neen ci yonent bi laa jóge wàcc nañ ci moom aay nee na bu ñu féetee Jérusalem waaye nañuy féete Kaaba ci misaal ñu féete woon fii fan penku bi nekk fii waaw kon ñu féete woon fii di julli am ku ñëw nii nee nañ di léegi nañuy féete fii ñu wëlbati ko féete fii moo tax ñu koy tuddee masjidul xiblate ni jàkkee ñaari xibla yi nga dugg fa julli fa ñaari rakk ziyaare soo fa génnee yaa ngi jëm xubaa mooy jàkke ji yonente bi ni fii ku jàpp ñëw julli fi ñaari rakk mel nga ni ko om um, ku umra ànd ak man bu loolu jeexee nag sa ziyaaraatu madina yépp jeex na dina la woon xubaa mooy jàkk ji yonente bi njëkk a taxawal ci lislam dina la woon masjidul jumaa fi yonente bi njëkk a jullee ajjuma wala saba masajid nga séen ko mais yooyu du bokk ci ziar bi soo delloo sa hôtel julli ji boo abee temps loolu lii daal mooy état bu madinatul munawwara ci macha allah macha allah oustaz am na solo mhm. am na solo trop léegi dañu bëggoon xam boo jigee madina oustaz fan nga jëm waaw boo jigee madina boo fa nekkee fan ya nga fan ne war a nekk da ngay dégg sax ñu naan la Medina force nga def fa nga am fa ñeen fukki julli lolu amul lolu amul parce que Medina lu mu for for for makka ko gëna a for ndax euh, Adja Fatou Bintou Diop suma jigen bobu nek TFM dem rek mang koy dalal ci suma émission yoon yi à la 2 mais mu ngi may jox exemple bu am solo Seydina Ousmane man bu fekkente ni dama am problème 1 million suma ma gis suma mbokk man bu baax bi wax ko sama soxla moom de par mille francs la may may suñu jigéen bi moom it di man bi su ma ñëwee wax moom mu may may cent mille te man problème mu un million laa am kii di ma may mille francs kii di ma may cent mille waa léegi man su ma bëggee gaaw a dajale sama un million ci ko may dem xanaa do kon ci ki may may cent mille laay dem loolu mooy Makka ak Médine ndax nee la Médine mille rakka la deux rakka 100000 rakk la ñaari rakk la 100000 rakk la la muy lu am solo loo xamante ni bu si nekk war na ci bàyyi xel kon yaa ngi boo nekkee Médine ba fay war a jóge dafa am bis boo xamante nan nan la préparé da ngay war dem Médine mak nga sangu sa hôtel prepare, sol sa équipement du ko armal acte bi mooy armal waaye du mbub mi mooy armal ñu da ngay ñaan sama armal ba sama armal ba du mbub mi al ihraamu mooy l'acte bi nga xamante ni ngay def match de football bu amé gaay équipement yi ñuy sol signifié wul né bu ñu équipé match bi day commencé équipé wu wu préparé wu ñu xaar arbitre le coup sifflet bu ñuy ñu soog commencé football muy basket ba ca lamb ja du mi bu ngem bo rek ñu ni bi day commencé day ngem Nous ci débat déba di ba heure bi commencé ba ko dernière consigne ni defal ni mu a kon yooyu yëpp boo préparé ci sa hôtel sangu watu ba dara dula sonal ci kawar gu mu meuna doon bu lay sonal nga bañ ko def e, laalal sa parfum ci sa yaram defal lo bëgg def diwul lepp mais ci sa yaram bu mu laal mbub mi ngay wara sol so pare na nga sol mbub mi yaa ngi jëm sul xulayfa sul xulayfa mu ngi nek ay 13 15 ba 20 km ak ak medina, fofa foofa nga yem mu ñu nan ko biiru ali muy abar ali yi ngay dégg so fa demee dugg ca jakka ja julli fa ñaari rak li nak goor ak jigen ci yam goor ak jigen li ci nekk nag mooy armalu góor ak armalu maanaam li muy sol ak li jigéen di sol du benn jigéen dañ ne ko yow daal solul ba sa dara du feeñ rek loolu lañ ko wax góor nag ñun ñëpp nañ ko xam moo tax jigéen ñi ndekete jàmbaar lañ seen Ousmane ndekete woddu bii jigéen ñi di def dafa métti de boo yeggee màkk ngay xam ne ndekete woddu beneen affaire la parce que c'est compliqué te da nga war a wodd am benn booy woddoo ak booy teg sa kaw loolooy armal góor du jiital dara du ci tubay ndaw du tubay ju mag dara doo ko jiital li ngay woddoo ngay yor ak li ngay teg sa kaw loolu ngay ngay ngay yor jigéen nag moom na muur léppam rek ba mu mat suñu demee zul fa julli fa ñaari ràkk bu fekkente ni tombé wul waxtu julli su dee waxtu julli la tombeel fekk rek sangu ngay def nga li nga war a def yépp waaj bu dee waxtu julli la tombeel nga julli julli googa doy na la sëkk suñu paree nag duggaat ci oto yi bu ñu duggee ginna nga nga julli fa ñaari ràkk yéene aj bi ngay yéene ñetti aj dafa am euh, dafa am lu ñuy wax tamatto am lu ñuy wax xiraan am lu ñuy wax ifraat ifrat mooy yàlla ñëw na de way lima la wuyse moy aj kese lay def euh tamatoox moy nga ñëw ni ko man de omra lay def xiraat moy man dama bo une pierre de coula def man dama boole aj ak omra ba ñu yéné lolu du gatti kar yi labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لي رك غي واخ عثمان ياغي جيم مكه ديغنت فوفا اك مكه 450 كيلومتر nga dugg ci oto bi jëm màkk kon daal boo jógee Madina yaa ngi jëm màkk. am na solo xanaa ma ñëw ci wàllu Zulxulayfa boobu nga wax rek. Mhm. parce que miiqa yi daa bëri. Mhm. ku ci nekk ak miiqa ba ngay ba ngay ajee. Mhm. ñu bëggoon a xam Sénégal ñoom ci ban miiqa la ñuy ajee. macha allah mu ngi laaj bu am solo si naas man yàlla na yàlla fayal ñu la ku la dégg xam ne li ngay wax loo maîtriser la waa kenn ku ne ak sa miiqa ñun nag chance bi ñu am. ñun wa Sénégal comme medina la ñu njëkkee te mi xëy wa Madinatul Munawwara moy Zul hulayfa ñu koy biro biro Ali chance biñ ci am moy ñun suñu mi moy mi miiqa yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam fofu mo doon mi xam ba muy aji Zul hulayfa la taxawoon yene fa ajam ba fofu di sa ali kon ñun chance biñu am moy fa yonent bi defon mi xam fa lañ ko def ndax yonent bi liñ koy dégg yëpp ben yoon la mas a aj ci dundam ben yoon la mas a aj foofa la defewon ak yoon muy zul zul xuleyfa macha allah imam ku la dégg xam ni wax dëgg yàlla yaa nga ko pratiquer xanaa delluwaat ci Seyd Xaaji Maalik rek daanaka woy na ko sax xajja rasulu salaasan qabla hijratihi baax du siban xajjatal islam tantazimi dëgg la kon yonent bi salaa salaam bu ñu doon laaj aj yi mu aj ñaata aj la war a doon dëgg la waaw xam nga dañuy wax ni kon yi mu ajoon aj bi jiitu ñu koy yónni kooku def na ko ñetti yoon comme ni ko moom Cheikh Alhaji Malick wax mais loolu bokkul woon ak aj bi nga xamante ni lislaam tëraloon na ko loolu mooy wane ni ñoom tàmmoon nañu maanaam aaday arab aj màkka def ca bokkoon waaye nag nañu ko daan defee ak ni ko lislaam bëggee du benn bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee nag ñii nee nañ ci sixième année ci yónneem la ñii ni ci neuvième année si la ko yàlla waxee ni ko nañuy aj te nii la ñuy aje keroog bi mu ko waxee sax benn ci saxaaba nee na ko ndax at mu jot la faalewu mu laajaat ko ko faalewu ko mu laajaat ko ko ba mu ñett yoon yonent bi tontu ko après yonent bi ni ko su ma ne la woon waaw mu war leen te kon du ngeen ko man di def at mu jot bàyyi leen ma lu ma leen laajul lu ma leen waxul bu leen ci topp ndax bu ngeen ci toppee man ngeen ci am information boo xam ne du leen arrangé moytu leen la kon nag bi mu nekkee yàlla yoon ne ko muy yonent moom li téere yi saxal ma benn yoon la ci def aj aj moom sallallahu alayhi wa sallam macha allah moo tax mu ni xusu anni manasikakum <laughs> leen ci man ma jàngal leen aj ñu lay santaat bu baax di la gërëm imam ba tey foofu. Mhm. ñu duggaat ci aj ba léegi. Mhm. Euh, bu ko defee dañuy ñëw ci wàllu farata yi. ñu mhm. bëggoon nga leeral ñu farata ak yi. yan ak yan la ak soo ko bawee lan moo la ci fekk. waaw loolu am na solo moom la ñuy wax arkaanul xaj ponki aj yi ñi nga xamante ni boo ci bàyyi déwénati la ñuy wax moom la Alaaji sa suma grand frère di tudde ñeenti déwénati yi am na yoo xam ne ci aj màkk boo ci deful amul lu koy réparé lu dul déwénati rek ngay ñëwaat pour aj ñeent la ak ñeenti ponk la benn bi si njëkk mooy al mooy li ma leen wax ba nga nekkee ca zul fa julli ñaari rakka foofooy sa miiqa nga yéene fa yàlla wuy si naa la bu dee ak kese nga def ifraat yàlla wuy si naa la tamato wala muy omra wala wuy si la aj ak omra loolu ngay def ca sa miiqa soog a dem loolu bokk na ci arkaanul xaj ku ne aj naa waaye armalu ma maanaam yéenewu ma sama aj xam nga loolu mënul ne jullit mënoon ni damay julli te duma ko yéene xamoon nit dina taxaw julli ñeenti ràkk tisbaar wala ñaari ràkk suba wala ñetti ràkk timis ñépp gis ni julli na te yàlla du ko nangu sa moom mi julli moo gën a xam boppam su fekkente nekk na foo xam ne ah fii da jaay dañu bari wax boo fi julliwul léegi ñu mbamb la fi waxal la fi yeneen naa julli rek yéene julliwul de mais mu ngi def acte baar mu ngi kàbbar mu ngi sëlmal xam nga kooku mbaaxul kon yéene ci dafa am solo mooy al ihram ñaarel bi boo yeggee màkk assaa yu bayna safa wal marwa daw bi ngay daw diggante safa ak marwa moom it ci faratay aj ji la soo ko deful sa aj du baax ñetteel bi wuqufu arafa yonent bi nee na ku taxaw la arafa sa aj baaxul ñeenteel bi mooy tawaaful ifada moom la yàlla summa afidu min xaysu afaada naas tawaf boobu ñuy def ci bisu tabaski soo ko mënul mën nga ko def sa ëllëg sa wala ci ayyaamu tashriq yi nga def ko ca waaye ñeenti yi moom boo ci bàyyi baaxul am na nga bàyyi xel nag ni sa ay bay na safa wal marwa mën nga dugg màkk war ko def mu rëcc la nga dabwaat ko balaa ak gee jeex boobu sa tawaaful ifaada mën na la rëcc ci premier jour nga def ko deuxième troisième ba quatrième loolu mën na nekk boobu sa armal soo romb ndaroon a romb sa miiqa ba dem dañ naan la da ngay deret ndax sa da ngaa romb sa miiqa ah, mais gis nga euh, arafa kenn mënu ko warate sa aj baax gis nga bis bu jotee Seydina Ousmane même les malades dañ leen di dugal ci des ambulances médicalisées indi leen parce que boo fa newul sax aj baaxul moo tax yéen tamit alxajju arafa kon daal su ma doon tënkaat damay wax mooy aj ñeenti ponk la am armal daw safa ak marwa tawaaful ifaada ak arafa yi mooy ñeent imaam am na solo xanaa le bëgg leerluwaat rek yonent bi kan la ñuy farataal ci moom aj mhm. ak ban at la aj waaw moom la ñuy moom laa la doon wax ni la dañuy ci sikki sàkk xam nga gars yi dañuy wax ni ñii dañ ne ci juróom benneelu atam sila la sila la si la si lañ ko faratal ñi ni juroom ñentel atam ba ci lañ ko farataal kon daal wuute am na foofu ci borom xam-xam mais mu ngi ma bayilo xel di julli di fofu toujours ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni kep ko xamanteni nga aji mën nga aji mhm. mu war la mhm. nga mën ko ren tok ba dewin yaa ngi ci risque mhm. parce que mën nga dina bayyi ba dewin xam nga fii ak lu ne xajna na fi xaalis bu réer xajna fi febar xajna fi ay problème xajna fi lu ne xajna fi kon soko mané rek def ci nu mu gën a gaawe moo tax moom bañ ko farataalee ci moom daal nee def na ko ci na mu gën a gaawe moom sallallahu macha allah imaam li nga fi leeral am na solo mhm. xanaa boo demee ca maqamatul xariir ndeysaan wooy na ko fa mhm. alxajju an taqsidal baytal على تجريدك الحج لا تقضي به حاجه والله ندسان وتمتتي كاهن انساف متحزا ردها هو هاديا والحق من هاجه والله ندسان وان تواسي ما اوتيت مقدره من مد كفا الى محتاج الى جدواك محتاجا والله ولف هذه ان حوتها حجه كملت وان خلى الحج منها كان احداجا والله ما شاء الله امام ني لاي سانتي لي بيب xajul ci cin bi xanaa kontaan ci sa teewaayu tey. parce que xam-xam bi nga fi génne nit ñëpp mën nañ ci jariñu. macha allah ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax parce que xam nañ ni amoo temps. temps dafa cher. amoo temps waaye wax dëgg yàlla bi ma la wooyee automatiquement nga ni ma ah lu ma doon def dinaa ko bàyyi. loolu wax dëgg yàlla du lu yomb. koo xam ne ñëpp la soxla. yaakaar naa boo ko amee war nga koo delloo njukkal. beneen bi borom xam-xam daf ni isa afadak insaanu bi faidatin minal ulum falazim shukruhu abadan وقل فلان جزاه الله صالح عني صالحة أفادنيه ولق الكبر والخسد يلا الله يلا فاي امين يا رب وغادي في نيبلي غريم بو باخ باخ دي نوي سماك يو باخ يوي تفسير عبد الرحمن نيو ايدي سي دي لين سانت انا نيو باي لا رك غا دالدي تاغو لام نعم، صلو لا جيره يلا يلا فايل ما شاء الله دي كونتان كوم نيما كو وخي سي دالال بيغا نيو دالال دا ما وخ ني بريستيج اس نين كوي وخي نين كوي وخي سي nii mu nekkee rek dañu xam ni lii prestige yi waa Thiès la waa cees ñoo ko moom kenn ëpplewu ci kenn dañ ko war a jàpp téye ko soutenir ko jàpp ci ba mu yegg fa mu war a yegg parce que ndamu cees la lépp cees la kon ñu ngi kontaan njëkkuñu fee ñëw tey suñu mbokk jawee dalaloon nañu fi tey it nga dalalaat ñu fi ngeen xam ne saa yu ñu ñàkkee mën a ñëw rek ay xat-xat moo ñu jàpp waaye bu ñu sañoon sax du ñu gëj ci kër gi ndax wareef la kenn ku ne indi si dimbal sa jàpp macha allah rawatina nag lii ñu def macha allah jël la ngay doomi daara dëgg yàlla nit ñi xam ne li araam naan aatil xaw sabaariha mbir mu ne seetal ki ko xam nga jox ko ko loolu dafa am solo liñ la jox loo maîtriser la loo xam la ndax doomu Cheikh Ahmed al imam Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye macha allah di seti maam bàyyi alaaj Njaase Mbaye bu taxawee lay lii def na li mu war a def waaye xam nañu yéen ni ki ñu ko jox mën na kon ci tënk rek damay wax ni xujjaaju baytullahi alxaram yi nañu bàyyi xel ci lii temps bi moo xat waaye bari na lu ñu waroon a ñëw waaye li nga wax rek lu duuf ci nag xajul ci cin li bu ñu foy seen ñeenti déwénati yi bu ñu bàyyi kenn ku leen ko war a buñ ko war a def mukk di ko sàggan te defuñu ko am na leneen lu jox waaje baatul xaj yi nga xamante ne boo ci bàyyi du yàq sa aj waaye dafa am lu koy jàngee temps baa ca xatul moo tax dikkuñu sa waaye ñu xam ne moom ñeenti farata yi moom bu ñu sàggan kenn di leen ko yàq ñaanal yàlla ñëpp nag ñu dem ci jàmm dikk ci jàmm yàlla nangul ñu aj bi ba li yonent bi nag ñu am ko ñu bàyyi xelit ni bu dem ku dem màkk bu fa xulloo bu fa histoire bu fa werante alxajju ashhurun maalumatin fa man farada fihinna alxajj fala rafata wala fusuqa wala jidaala fi lxajj bul caaxaan bul xulloo bul dem imaam xam naa sax bu doon suñu ngënee dañ lay dalalaat ci beneen plateau continue ci waajibaat yi mm. waaye comme temps dafa cher te xam naa ni yaay nii di wàcc dem ci yeneen programme bu ko defee ñu sant ñëpp gërëm ñëpp maa ngi gërëm alaaji te Pape mbay mooy taaw alaaji Ndiasse mbay di gërëm sama sama wayjur imam Cheikh Tidiane mbay dama koy wax toujours wax dëgg yàlla moom mi ñu defal formation bi ci wàllu diine ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may wér di gërëm sama invité bi macha allah imam man mooy sama imam <laughs> mooy sama imam macha allah ñu gërëm aussi suñu techniciens yi nga xam ni ñoom la ñu àndaloon wàllu ak soxna su baax si wax dëgg yàlla di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu